ci loo ne. sant yàlla Babs. mais dama laa namm de. fii la ëpp waa Babs soo rekkoon yow. man de maa ngi ci dëkk bi de man de dama laa gisatul sax. émission yi ma gisatul dama la gisatul fenn. ah ma déet man kay temps yi maa ngi ci mbapat ya ah kon loolu la mais naka. ci loo ne. sant ba caméraman maa ngi lay ziar. naka waa Géejawaay. waa Géejawaay ngi fi waaw. sant ba Géejawaay ngay neex. waaw Géejawaay ngay neex alhamdulilah. lag la 4 avril. ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. ku ne xam na ne indépendance la. waaw ah, Géejawaay 1960. Géejawaay am indépendance am. da nga leen koy jox si. incha allah bu neexee yàlla. mais lak man dama la gis kanam gi biir li macha allah sa xel daa mel dal na de. sama xel dafa dal. waaw waaw boo paree xel day dal. boo parul nag sa xel du dal mukk. Ah. ma laaj la benn laaj. Mouhamed Ali Ndiaye moo doon tàggat Eumeu seen bi ngeen di bëree ñaari yoon defe naa nga jëli jiku loolu lu muy wundu. lu muy wundu. eh Babacar Babacar yow moom beneen affaire nga. waaw waaw du la noonu la c'est normal ci liggéey bi la bokk. Uh-huh. Babacar. waaw. mat mat mat naa bàyyi cim réew. mat mat naa uh-huh. eh, yoree sa marchandise. def naa da koy toppatoo. fonk ko mm-hmm. jox ko mm-hmm. mais boo xullee ba respecté woo sa marchandise boobu tuur ko. ba ku bëgg marchandise ñëw for ko hmm. gis lim may def ma koy daj. waaw ah. ah, kon nag kon ah, marchandise boobu jar naa fonk. kon da jàpp ne moom dafa fonk kon entraîneur bi. kan kii ko jar fonk la. moom da fonk ko. nga xam moom da kaa waxuma fonk ko de mais dama ne fonk fonk li nga xamante ne dafay sonn say mbir lu jar la. mais dama ko dégg ci suba dama leen lire yéen ñaar mu ne moom. adversaire am xam na seen ay fort ak seen ay faiblesse te yéen bëri ngeen ñaari yoon loolu loolu noo noo ko déggee. waaw waaw noonu la c'est normal ñun tamit xam nañ point fort ak point faible hmm? point fort ak point faible xam nga wax naa ko benn jour nee naa ko na bee dañ doon dem ak euh, de jeunesse mais léegi nag na. et puis fi ngeen di bëri daa bëri gannuuf de wax naa ko tey nee naa bu ngeen yeboo waaj de foofu daa yow mës nga faa bëri daa suuf de. man bëri fa de kan ma fa bëreegul. moom moom bëreegu fa waaye nag moom it ku ñeme ku ñeme moom mbëru mbapat la dem yaa yàgg naa bëri ci gannuuf de. mbëre mbapat la. waaw mbëru mbapat la moom. Hmm. ok mais man bëri naa ci de bëri ci xam naa lu muy saf xam naa lu mu dul saf. waaw ak a neex ak a neex le 4 avril. le 4 daal mu mel ni bés la ci bés yi. waaw dañuy ñaan yàlla rek yàlla def ñu fekk ak jàmm te tal ko. Père Gaston loo koy wax. waaw sama papa Gaston kenn amul fayam parce que làmb dem na ba benn moment boo xamante ne dañ ne woon làmb léegi c'est fini moom mu ñëw def ci loo xamante ne tey dundaat xolu nit ñi pour nit ñi dundaat làmb. mu ñu def ci lu dara jarul kon donc jëmm jooju noonu dañuy woo képp koo xam ne sponsor nga mu dem seeti la ngir yàlla war su ñëw jàppale suñu Papa Gaston waaw ndax nit ku baax la nit ku bëgg réewam la nit ku bëgg li muy def la nit ku bëggu làmb la kon donc nit kooku bu def loolu da nga koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla yokk ko man moom vraiment ah pour te dire la vérité man je l'estime beaucoup sama papa la et je le respecte beaucoup lii mu nii ah yal na ko yàlla yokkal yeneen yi nekkaat ci kanamam yàlla jàppale ko mu dem waaw ah, ndax nit ku baax la yal na ko yàlla bàyyi ak njabootam. xam nga faw ngeen yëngal yéen ñaar yow mbay si ku ne xam na ne moo lay tëggal moom Mor Ngom di ko tëggal loolu tam defe naa xanaa côté boobu da doo nangu mu yóbbul la ko donte moom mbërum njuugkat la man naa njuug ba ca suuf a suuf. waaw ah, moom moom da kaa mën moom ak a mën a ak a mën a day njug ba a cegit ki kit cegit ki kit cegit ki kit cegit waaye ak a ñoo mën waalo waalo yow mën nga ngeen koy defee. waalo waalo. waaw dagg bi. waaw da ngay jël sa loxo yóbbu ko rek. ay lu leer laa la dagaj rek. dagaj rek. lu leer laa la wax. mais combat bi mën naa gaaw. mu gaaw mu yéex. na gars yi kontaan dafa am ñoo xam ne dañ ne lak bëreem du gaaw bëreem day yéex nangam sangam. xanaa gars amuñu coffre. Grand Dakar. xam nga ni euh, euh, ay jamono. bu fekkee ne li nga wax dëgg la ci yow liggéey nga liggéey bu metti liggéey nga liggéey bu metti ah doom nday bu ko yéexal waay ah. bu ko gaawal. dangeen ko war a xoos. da ko war a xoos cons ko. comme Girek Balla cons. cons. kankiñ kang. benn ah, benn tempo tempo. bu fekkee li nga liggéey wóor na wóolu nga sa bopp. waaw waaw ñu ngi dolli ziar <laughs> jàmbaar ji ziar ziar li mu amoon da koy jëliwaat mooy lan su ma gisee lu leer damay dem lu leer su ma gisee damay dem su ma gisee lu leer damay taxaw xaar ba gis lu leer. ba suba noonu nga ko doon a jàpp. déggoo li ma la wax su ma gisee lu leer nañ dem waale su ma gisul lu leer nag. dangay taxaw rek di ko. tali bi tey boo oto yi doon jàll nii. boo gisul leer da ngay jéggi. waaw leer de moo gën a wóor lëndëm. léegi boo bu oto yi di jàll nag boo gisul leer da ngay jéggi. mais man ndax dina la bàyyi ci loolu est-ce que du la fekk si nag parce que yaram moo day tàng de. damaa xalaat mu fekk si la de. bu la fekk see fo noo koy lijjantee. Babacar. Babacar damaa pare combat bi de. bu la fekk see bu dalee sa kaw. Babacar ku dal sama kaw dootoo dalaat sama kaw. day songu day xeex de. Babacar. combat bi dama ko pare de maa ngi lay wax nangoo maa déglu ba léegi. ah man kay xam naa ne pare nga. ndax li jar nga jëli Mouhamed Ali Ndiaye daf ko sa wet. Ali Ndiaye ñëpp la fi nekkal mbër yëpp la fi nekkal. Ah, fan yii nag daa mel ni yow la xaaral ma wax la Mouhamed Ali Ndiaye suñu papa la suñu lépp la. Ah. ñëpp la fi nekkal nekkal ma fi man kese de. Ah. pourtant day entraîné Balla Gaye. Eh, ak Balla Gaye benn ngeen. xaaral ma wax la day entraîné Balla Gaye day entraîné keneen keneen ak keneen. yaa ngi dégg boo ko joxee cër boo ko joxee cër mu entraîné la waaw. yow nañ joxante rendez-vous bala kaat. incha allah bu neex yàlla di woo waa Géejawaay yëpp di waa waa Gunaas Gunaas moom sama Gunaas la di woo waa Gunaas di woo waa Baxdaat di woo waa Géej marché ñetti mbaar marché bees fiñ mi fi ma dëkk yaa ngi dégg surtout waa fiñ mi waa cité des enseignants ñëpp ñu ngi woo ñëpp. di pare la 4 avril rang day gaaw maa ngi sant yàlla bu baax. de mbaa yaa ngi am jàmm. bu baax a baax bu baax a baax. man de sama question rek mooy leen Eumeu seen defe naa ba mu bëreeg la ak ñaari combat bi yaa ko entraîné bii nga ñëw entraîné la lu waral diggante bi. c'est comme ça tey mën nga nekk ak euh, Pierre suba mun nga nekk ak Jacques aujourd'hui je suis avec Lac de Guiers donc ça se passe très bien. nekkin bi am na solo. macha allah yàlla bu ci cat dugg lak nekk nit ku baax je le félicite nag de passage. de passage nag di nuyu sama doomu ndey Max bi nga xamante ni tey sama partenaire la ñoo àndoon ci liggéey bi vraiment di euh, jàppale Lac de Guiers 2 ak mussa Fall depuis Paris même pour te dire que ni sur le programme dañ ciy discuter toujours wax dëgg yàlla nag aussi mu ciy jàpp ba nga koy ziar bu baax a baax di nuyu waa Paris Biram Diop Pape Cargo Omar Thiam la bëgg a citer c'est comment ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar te xam. en français. je remercie euh, d'abord euh, Babacar euh, mes amis mes frères déjà Max qui est mon partenaire qui travaille avec qui a travaillé avec moi sur la préparation de la Lac de tout ce que je peux vous dire Lac il est prêt pour le 4 et le 4 avril Inch'Allah si tout se passe bien on va voir un autre Lac de Guiers différent de celle qu'on qu'on voyait d'avant